mi mun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.
ngeen ne jidda ko neex ngeen ne jidda wa rakibna min jiddata ila makkata baada alishai al axira wa wasalna ila di tuwan بعد بعد انتصاف الليل وبتنا فيها أي في جرول بعد طلوع الشمس اغتسلنا ودخلنا مكة وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وذلك يوم الثلاثاء ومن حسن الاتفاق أن البيت وجدناه مفتوحا وطفنا جميعا نحن وسلطان كانوا وجماعته يتقدمنا رجل اسمه الحسن المطوف وبقينا بلا مطوف والحمد لله وله المنه وأسكننا الله حيث أن ضيفه ببيت مجاور لبيت الله الحرام نكون فيه وننظر إلى البيت والحمد لله تعالى وكنت أقول mu ne ñu dépare Jidda nag jëm Makka kañ gannaaw bu gee jotee lool bañ egsi teen bi ñu naan Zituwan fekk minuit jot na ñu fanaan fa xoolal nag yaa ngi ni gis wala gis leen ñoo bokk nusxa ñoo bokk nusxa vingt cinq dégg nga maanaam maanaam exactitude ni ko bàyyi bëggee mën ñu egg zituwaan xam nga ab teen la fañ wax naan nga sangu fa bilaa dalkin bi ma doon wax sëriñ keroog ne ko ba ma ba ma fa gëjee jaar ak rajo bi laa fa gëjee sangu mujj gi ñu bëri xamuñ sax ne teen baa ngi foofu mu ne ñu fanaan fa xam nga ne kon xam nga ne ab teen kenn du ci fanaan mu ne ñu fanaan jarwal laa wax ndax mooy quartier bi mu nekk jarwan baata tulu mu ne gannaaw bu jant fenkee nag ñu dugg màkka màkka gu rëy gi ngeen gis bokkut ak màkka googa booba ñu dugg si màkka nag dem def tawaaf mooy tawaaful qudum ngeen nga egsi dox diggante safa ak marwa mooy wane ne dañoo jiital aj wa dalika yowma sulasaa yi toujours dafa lay fàttali bés yi mu ne wa min xusni ittifaaq bokk na ci nag ci li ñu yàlla may ñu tombe ca nag tombe ko rafet mooy ne dañoo fekk ñu ubbi néeg bi néeg bi mooy jàkka ji bokkut ak kaaba gi kaaba gi buñ ko ubbee dana la ko wax ca kanam nga déggee ca ne jamono jooju li ñuy wax al bayt amoon na tëj ko ubbi ko xujaa yi duggoo lu ñàkk dugg mu ne ñu tombeek ñun fekk mu ubbeeku ñëwuñu sax naan ubbi leen ñu dinañu fekk mu ubbeeku yaa ngi dégg an al bayt wajadnaahu maftuhan mu ne ñu daal di tawaaf ñun ñëpp ñoo sultaanu kanu bi jàppoon ci moom ca Madina Munawara te mujj dana la ko wax nekk nekk xaadimam dañ ci ñëw ci kanam ci ishaara bu latif sax sultaanu kanu wa jamaatuhu ndax moom dafa àndoon ak yu bëri ay buur yu ndaw ak aalim bu mag boobu wasiiram bi yataqaddamuna rajulun ismu alxasanu mutawif benn mutawif bu ñu ràññeen comme ni ñuy def ñëpp groupe bu ne am mutawif bu leen jiite xam nga ñaan xam nga attey aj waaye nag pratique dafa bokkut ak théorie ndaxte am na góor goo xam ne aalim bu mag jàng nañ ko ci téere ba mu ne carax masjidu xaram rek comme nuyu jàkka mooy ñaari rakka dafa dal di dóor ñaari rakka benn ak gone xaw ma day jaay ndox xaw ma ne ko taxiyatul masjid yi tawaaf ne ko fii taxiyatul masjid bi du ñaari rakka bàyyi mooy wër kaaba gi mu ne ko moo ne bind naa ko sax suma téere moo tax bul bañ ku la jiite su fekkee ne mën naa am doo xamee fii bàyyi ca saasa mu ne wa baqina bila mu taw yi fi bañ sagalee waaje ñu wër lañ toog nag amatuñ mu tooyuf ñooy suñ mu tooyuf bopp man mos naa am mu tooyuf sama ay ku ñëkk defe naa waaw jigi nag tabaarkalla wa baqina bila mu tooyuf walhamdulillahi wa lahul minnatu pourquoi walhamdulillahi ak wa lahul minnatu Sufyaan ki war na koo laajte mi ngi sant yàlla ci xéewal gi mu ne yàlla moo ñu xéewal waaye itam moo ñu mën a ñax bi mu ñu mayee ñu sant ko ci xéewal gi ndax bàyyi neen waxtu woo sant xéewal rek xéewal gu bees tudd na bu ñu la yërëmutoon da ngay continuer di sant rek moo tax sant am lu mu taxawee mu ne yàlla nag def ñu ñu dëkk askanana allahu xam nga gisul loxo nit fi mu ne yàlla moo ñu dëkkal xaysu anna dayfuhu bul mas innaa de xaysu anna dayfuhu mu ne comme ñun ganam lañ yàlla dëkkal ñu xam nga nit mooy dëkk maanaam euh, euh, gan dañ koy dëkkal dañ koy dal mu ne yàlla dëkkal ñu bi baytin mu jaawirin li baytillaahil xaraam kër gi ñu dal néeg bi ñu dal dafa dend ak euh, baytullaahil xaraam hmm. kunna fiihi wa nandur ila al bayti walhamdulillah boo nekkee fi nga dal yaa ngi janoo kaaba gi loolu nag bu doon xëy na keneen waaw kala jege na du sonn rek waaye xaar xaaral lu la bàyyi dox moom mu ne walhamdulillahi taala wa kuntu aqul su ma nekkee foofa di xool kaaba gi maa ngi doon wax allahuma inni nawaytu an ataqarraba ilayka binnadari ila baytika alxaraami binniyati allati kaana yanduru biha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam away no mu ne yàlla borom turu sell yeeg melo yu rafet yi maa ngi yéene jaamoo la ko ngir jago jege la bu may xool kaaba gi maa ngi koy xool ci yéene nag la ko yonus doon xoolee qatan wuute nag ñun wa fi yowmi arbiaa talaqaytu bi xabibil wali saalix wa nuuril waadix talaata la àllarba ji nag mu ne ma dajeeg suma soppe ba wali wu sell wa leer gu ne naññ ga shariful munif muy sharif boo xam ne bii ci ñi yëkkatiku la askan Seydi Ahmad Tibr waa Madina Munawwara la ku jaxasoo bàyyi la bàyyi na wa farixtu bihi faraxahu bii ma bëgg ci moom ni mu bëggee ci man wa qaala lii maa maanaahu alam tuktab wala taktub ruyan raaytuha bika qablu jumla jooju daf maa jaar maanaam daal ndax bindoon nga ndax bindoon naa la géwéntu gu ma gisoon ci yow njëkk tey ala kulli xaalin daal mus naa géwént géwént ak waliyu saalix ci bàyyi wa hiya anni raaytuka tatawalla jamia almashaaribi wa maanaha innaka muxiitun bilmashaaribi mus naa géwént ne moom kooku bàyyi na waliyu saalix la ahmad tibre mu ne ko man xam nga géwéntoon naa ndax bindoon naa la ko ndax wala ndax bindoon nga ko xaw ma mu ne ko dama laa gis nga méngoo mbooleem naanuwaay yi naanuwaay yi nga di ko maanaam ma maanaam nga di ko diriger mu ne te maanaam wax jooju mooy da nga ndar képp machaari bi yépp 37 37 pèlerin d'un pays colonisé nit ku ñuul la ma xees xees ta rafet dem ñëw Sénégal lépp tubaab yi nangu nañ ko ci ñun ca lu baax alors léegi ñëw fii gaañu mag ñi naan la yow day gis naa la naan waa yëpp nga méngoo ko te bàyyi mos gannaaw gi waxtaan na ci mashrab boo xam ne ñett cay naan xam ne kenn cay naan bi ngay mashaari bi dégg mu ne wa futihatil kaabatu wasdahamtu ma annaasi xatta daxaltu mais loolu xam nga al baytu maftuhan la wax mooy jàkka ji mu ne kaaba gi itam nag ñu ubbi ko ci bés boobu mu ne nit ñi di buuxante dugg xam nga jàmbaar la 37 ans mu ne ma buuxante ñoom ba dugg ma itam xam nga xam nga buntu kaaba gi dafa yëkkati ko waaw wa qaala li cheikhu waa ji nga xam ne xaajibul kaabati Abdoulaye Cheybi ki nga xam ne ñoom ñoo amee caabi kaaba gi dëpp yonent bañ ubbee màkka sax daf leen ko delloo Abdoulaye Cheybi ba léegi Abdoulaye Cheybi ñoo fa nekk mu ne ko maa laka lam tuallim nii wala lam tuallim nii aftax laka fi waqtin maa fihi ahadun illa anta wa man tuhibbu boo xamte ba ñu wàccee mu ne ko yow mënoo ma wax ma ubbil la kaaba gi waxtu boo xam ne yow yaa koo wax rek yéen a ciy nekk ndeysaan boobu itam xam nga jagle la booba surtout mu ne wa futiha lana laylatal xamiisi baada nawmi naas mu ne ñu ubbil ñu nag kaaba gi al bayt ñu ubbil ñu ko bésab alxemes la maanaam àllarba ca guddi gannaaw bu nit ñi nelawee bul bul séentu màkka rëj rëj yi fi nekk de boobu màkka gu dal la ana wa muridi sultaanu kanu wa qawmun min xaasatihi gis nga phrase bi yàlla rek moo ko mën a maye mu ne ñu ubbil ñu man ak suma taalibe bi sultaanu kanu xam nga kuy sultaanu kanu Abdoulaye Bayero bi nga xam ne taqlid la su génnaan ci mbeddi kanu kum romb ci nijaay da ngay egg suuf rankay dadi suuf dalal ku màgg kaa ngi jaar ci sa kaw rankay dadi ba léegi xam nga nit ñaa ngi koy sax ka kafe rankay dadi wan la ne maa ngi lay marhaban mu ne ana wa muridi sultaanu kanu ak nag ci xaasatu yim àndal wajat naa waxtan laa yu baaxu bi deen bi dinaarin wala dirhamin mu ne nag ñu am fa waxtu woo xam ne xaalis bu nu koo jënd du dinaar du dirham walhamdulillahi taala wa taxaqaq na dafara bi kulli matlab mu wóor ma ne li ma doon sàkku yëpp am naa ko maanaam du du dugugale de lam am bam duggee dafi wa fi tilka saati nazala almatar nazzala alayna taxta albaabi wa taxta mizabi rahmati walhamdulillahi taala noonu rek mu óor ma ne yàlla nangu na sama càkkuteef yëpp ñu wàcc rek mu taw ci suñ ko ñu dem ci mizabu rahmati mu taw jaar ci mizabu wàcc ci ñun xam nga lu mizabu rahmati ca kaw kaaba ga gucceer bi nga xam ne suy taw ndox mi fi lay jaar di wàcc ndox mi taw na ba pare jaar ci mizabu rahmati ñëw sotti ñu rahmatu taxawal tuuti nag foofu gis nga mizabu rahmati boobu ba léegi boo demee nit ñaa ngay dàq nit ñi mais ku ne ndey yi day egg ci nit ñi mag ñi dañoo wax ne en tout cas bàyyi daf maa wax ne ma gis nga baraam fii teeloo te mun a misawu rahmati nga tolloog moom ñëw taf sa bopp ci kaaba gi soxla bi bi la itteel nga wax ko téeméeri yoon da nga koy am man daan naa ci ñu koy def xaw ma xam nga yàlla man nag dégg sa man bu ma ànd ak bàyyi ak bu ma nekkee màkk ak bu ma nekkee ci yàlla quelquefois yàkkamtiwuma benn bés nag ma ñëw màkk sans bàyyi man maa fa ñëw gannaaw bàyyi fekk su ma kër maa ngi tabax ba war a kii dale ñu ne ma dal nag li ci gën mooy benn yoon lañ koy def da nga ne maa ngi calcul dale ak nangam nangam mu itteel ma lool fàttali naa ne lu ma neex ma am su ma demee foofu waaye ma dem ba foofu ñaanu ma fa lu may lu ma dale maa ngi koy rëccu ba tey ma ñëw rek tafu xaw nu ma ko ràbbee woon rek moom muy téeméer ba kii ngoon gi may am li ma soxla woon nam demee duma ci dugg ba mu kilee nag nag ba ma ko compté mu juste le projet ba waxoon ma ne waaye ma ay su ma yëgoon ñaan yàlla tëj safar benn yoon rek di dama leen koy nettali allah dem naa gannaaw gi demaat na mais su ma fa demee dootu ma ñaan dara ci àddina lii moo ma jaaxal. bi ma demee ba nga xam ne banque baa ngi bu ko jaay suma kër te dañ maa tooñ booba sax dem wax ma ko fa. yàlla la neex rek mu indi lu ko fay ba mu des ba jënd kat kat. wa fi yowmi alxamisi ataani sharifu lmuniif wal allaamatu alxitriif man laa ashukku fi wilayatihi wa salaahihi sayd ali alkutbi xam nga nit ñi bari nañ ci bari gu jaadu waaye nag xoolal ñu bàyyi di junj mu ne alxames nag benn shérif moom itam boo xam ne tubaarkalla bari xam-xam lool nekk sang nga xam ne sikkuma mukk wilaayaam ak salaaxoom mi bokk ci saalihiina bàyyi noonu na seetal alxuraan buy tàgg ba ni mina saalihiina rek wax ji jeex na ndax amul lu ko passé sikkuma salaaxoom kan Seydi Ali al-Kutubi wa talaba minni tajdida ma indahu min at-tariqati mu ne naa ko eesalal lim am ci tariqatu Seydina Cheikh ca Makka googa wa qultu lahu ila waqti al-ishaai ma ne ko bàyyil ba ba gee wa ataytuhu tariqata xam ki dafa ne naa ko beesalal bàyyi mu ne ma jox ko tariqa bi xam nga ñaari waxi bokkul mu ngi mel ni ku doon laaj li ñu jox la daal la nga la nga soxla booba te nit mun naa ñëw ñaan la frotter nga ne ko baax na waaye xaar ma may la wér tariqata wa qultu lahu ila waqti mu ne wa qaddamtuhu bi kulli ma indi min ijazat li ma am yëpp ci ay ijaza ma ma dëgg ca li jaasaal ko wa arju min allahi an yansura bihi tariqata maa ngi yaakaar ci yàlla mu dimbali tariqa bi jaare ko ci moom xaqaqa allahu rajaana fiihi wa fi jamii l ahbaab yal na yàlla dëggal suñu yaakaar ci moom ali kutbi yi ak ci mbooleem soppe yi wa aqamna yowma aljumuati wa huwa yowmu tarwiyati xata salayna aljumuata bilxarami wa tufna wa dahabna ila minan foog mu leeral ko nag wa bitna fiha laylata arafa al ula mu ne bésu ajuma boobu di yowmu tarwiya xam da ngaa war a xëy dem minan ndax minan li gën ci aj ak sunna mooy nga julli fa juróomi julli boo xëyee dem fa julli fa tusubaar julli fa takkusaan julli fa timis julli fa gee xëy julli fa suba door a dem arafaat mu ne nag wa aqam naa yowmal jumuati maanaam fil xaram fi makka xata salayna jumuata bil xaram ñun nag au lieu ñu xëy ñu toog fa ba julli ajjuma ci makka au lieu ñu xëyoon dem ñu dem gannaaw julli juma wa tufna wa dahabna ila minan wa bitna fiha laylata arafa al ula ñu dem minan fanaan fu guddi googu nga xam ne mooy bu bët setee la ñu dem arafa ci guddi yu cher yi la bokk walamma talaati shamsu ala thabir doj la téere yi ñoo ko jàngale bu jant bi penkee pour nga xam ne penk na da ngay seen mu jayir ci doju thabir waykat yi yàgg nañ ko tudd dahab naa ila arafata dahwata yawmi sabt ñu jógee nag minan ca yoor yoora bi sab samedi ba jëm arafa wa nazalna inda masjidi ibrahima alxalil alayhi salaam arafa yaatu na mais nag ñun ñu dem wàcc ca jàkka yi yoon ci yàlla ibrahima alayhi salaam moom mi yàlla ne woon wa addin fi nnaasi bilhajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiqin yashhadu manaafi'a lahum mu ne yàlla nu may kii mu ne ko waxal rek man maay jottali nit ñi nag nangu nangu nangu ñëpp dégg ko ci aslaabul abaayi wa arxaami ummahaati ñu ne ku ne woon labbayka benn yoon da nga aji benn yoon ku ne labbayka téeméer yoon foog nga dem téeméer yoon peut-être bàyyi na pourtant am na ku dund màkka juróom-benn fukki at mëstaaj mbir mii du fawda de taqdirul azizil alim nen nañu màng ci yiw aha ñu dem ci jàkk jaliñ la almusamma bi namira boo déggee masjidu namira rek namira mooy masjidu yon caar ibrahima wa darabna xaymatana ñu samp fa suñ bergenne bâtiment yi nga gis boobu amul de wala ma zaalat shamsu bañ fa nekkee ba zawaal jot ixtasalna bila dalkin aw bi dalkin daif noonu lañ ko jàng rek bañ toogee ba zawaal ñu sangu-sangu boo xam ne sotti ndox mi rek la wala boog tuuti ngay bomb wa dahabna wa sallayna maa al imami zuhrayni qasran wa jamal mi ngi jàngale aj ci boo wax ci ndaxte léegi boo otu mu tooy fi rek ñu yàq la aj wala ñu dem ànd ak ilimaan ja julli tisbaar ak takkusaan boole ko wàññi ko yonent nag bu daan boole ñaari julli tey wàññi bu jullee ñaari rakk yi rek bu ne asalaamaaleykum rek jóg ñu li xaamaat mu teg ko ci du sàbbaal sax jaabir nee na wala mu sabbih baynahuma shay'an boo ko defee léegi ñu naan yaa ngi yàkkamti wa ruxna ila mahallina ruxna maanaam ñu gont maanaam comme léegi nekk nañ fa ba zawaal ñu dem fële def la ñuy def mu ne ñu dellu si ci fi ñu dal fi ñu sampoon suñu bergen na wa akalna wa mashayna ila jabali rahmati ñëw nañ lekk dal di dem nag ca jabalu rahmati mu ne fan mawqifi nabi sallallahu alayhi wa sallam fi arafa jabalu rahmati fa la yonent taxawoon di ñaan ci arafa lii lee nga xam ne taxawaayu arafa taxaw naa arafa taxaw ngeen arafa égal nekk arafa teew fa ñu bari dañ foo woon ne arafa man man loolu laa fa woon bi may xale arafa da nga fay taxaw ba ngoon jot li taxaw égal teew mu ne ñu dem fa wa in kaanat arafatu kulluha mawqifan xadis a ko wax ñun foofa lañ dem taxaw waaye nag yonent nee na arafa yëpp mawqif la ndax booba daf ne waqaftu huna wa arafatu kulluha mawqif arafa yëpp foofi nekk te loolu rek maanaam rawatina bi ñu nekkee ay million tey wa waqafna lillahi alhamdu ala arjulina baada ma rakibtu jamalan limtisaali sunna toujours dafay yëkkatiku di la jàngal yëkkatiku mu ne xam nga taxaw teew mu ne bañ eggee nag ba ci jabal bi rahmati fa ñu war a taxaw ñu taxaw fa waaye nag ba may laata taxaw ak sama tànk ànd ak nit ñi damaa njëkk war gëléem dundal sunna si yonente ma fa waroon gëléem foofu am na gag bu muy dindi xam nga boo demee tey ñun sama aj bu njëkk ñoo bàyyi ko bokk xaj abdoulaye macha allah ak ak ak ak ak biñ demee ba foofee ñu war a taxaw duwul ci suuf doj wi duwul ni sénégalais yi def di yéegu ca kaw déedéet boo ne jule joñee tuuti rek foofu la daanaka mun ngaa wax ne yaa ngi teg sa tànk fi ku yónnante ak saa bay tegoon moo tax bu ñu lay wax ne nag yónnante dafa yéegoon ca kaw xam nga ne mënta am ndax gëléem gëléem looroon gëléem di yéeg foofu ci kaw bàyyi mi bëgg gëléem daf koo def wàcc nag door a yéeg tànkam kon nag gëléem gi da nga koy wax boo yéeg ci tànk nag nga yéeg am na ñu ñu romb ci Sénégal yeeg Sénégal yi ñi ngay dem foog ni mbir maa ngi ca kaw ñun ñu ngi nekk bàyyi rek nekk fa rek bàyyi moo ñuy sañaan gi laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ñu topp ca rek xam nga mi ngi compte xaw ma compte ba xadir gu mujj ga fekk jant bi sox mais diggante bi am na lu fa xew moom lu fa xew parce que ndaxte dafa am lu ma dal ci xaal bàyyi bàyyi na nañ ma jox xaw ma lan maanaam daal jox ko téere xaw ma suñu baax man daal maa ngi maa ngi maa ngi jooy bi bàyyi waxee ne xaw ma jox ko lan alors ma toog dégg ci sama gannaaw ci waxtu woo xam ne man rek maa ko xam ma yàlla parce que dama formuler ci biir jooy yooyu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga won ma ba lu ñu jógee fii ñu taxaw màndargam nangu aj ba may wax loolu rek ma dégg xuus muy baat la yaa ma ñëw sama gannaaw ma ñëw suñu ko lan mu ne mu ne mu ne a toxfa toxfa mooy téere bàyyi bi mu bind ci ay tuddee ko toxfatu ahli xaadira jëlal ma ne lan mu ne may gi ma ne jeex na hey an kañ yaa ma jaal wax sax ci yaa ma tuuti an kañ yaa ma ci aj gi mi ngi mi ngi mi ngi uuf bu sayri doomam muy nàmp ba mu sonnee sax am na xawsa bu ko romb jàpp na ne xawsa boo gis rek xawsa bàyyi la bu la koy téyeel ma olof la koy wax te kii la ko rek jox ko doom ji dafa son toog nag ba bër sa gisatuñu awsa ba gisatuñu doom ji di weenam yi fees ak meew boo ko xoolee da ngay jooy ñu door a gis xale ba bu séeri mii nga xam waa mu nekk oh ca kaw foofu lañ nekkoon ñu wàcc nag dem door a door a kii xool nag bàyyi moom xam nga danga war a bu la fa timis fekkee ci arafaat da nga toog ba jant soo waaye nag doo fa julli timis timis si keroog moom ci taqdir rabbaani mooy waxtu woo eggee rek mu doli fa même bu doon jël waaw kii bi dafa doigt bi dafa déplacé boo bëggoon sawar ci kii damay dab ba waxtu ba julli fa la nga def du noonu moo tax bàyyi na rek dañoo diggal ñuy topp wa ma ba mu ne wa min wa min ala dégg daay waa ala arjulina baada ma rakibtu jamalan limtisaali sunnati wa amar naa bu la neex nga ne wa amar naa bañ koo sodda waaye mu ne wax wa amar naa yëpp baax na wa amar naa wuquufanaa suñ taxaw ga bi duaai wa tadarrui wa dicrillahi taala ña ngay ñaan ña ngay toroxlu yàlla ña ngay tudd yàlla waaye nag da nga gis ci kanam fu mu waxee ne maa ngi tudd yàlla tudd ak jaam bu ko xam xam nga xam ne wuti nag tudd ak jaam bu ko réere wala ñuy tudd yàlla xatta garabat shams wala ma taxaqaqna al guruba bañ demee ba mu wóor ñu ne jant sona amul làmbale nazal naa ilaa xibaayina ñu wàcc doj wa nag jëm ci suñ suñ bergene ya xibaa ina xiyaamina baat bu ne lay jëfandikoo fii ndax day ba daañ waaye foofu am na dërs ñaare boo jógee doj ba ba timis jot booy boo boo miinut aj mun ngaa réer doo xam fa nga jógee woon ndax bala ngaa wàññeeku xayma yu bari màbb nañ leen xaat ngir kii yu yàkkamti yi waaye booba nag xam naa ne melul noonu ñu dellu ila xibaayina wa min alaamati istijabati duaayina wa qadaai jamici xawaayijina anna ma madatna aydiyana lidduaai illa nazala almatar wa hada waqaa lilubaydi alxaqiri inda albayti wa inda arafata wa inda minan wa gayri dalika mimma la abuuxu bihi mu ne bokk na ci mandarga yi wane ne yàlla nangu na suñ ñaan yi faj na suñ soxla yépp mooy waxtuum tàllaleel buñ tàllalee loxo di ñaan rek mu taw mu ne dal na njaam su xeebu si moom dal na ko ca Kaaba ga dal na ko ca Arafa dal na ko ca Minan ak sax am na sax mu ne yeneen yoo xam ne du ko wax mu ne am na ko waxoon ne wa maa katabnaahu mimma laa abuuxu bihi adaafu adaafi maa kunna katabnaahu waajo noonu ne li ma nëbb loolu xam ne du ma ko wax mukk moo ëpp fuuf fuuf fuuf li ma bind ba ngeen gis ko wa baada gurubi shamsi bi saatin li amrin iqtada dalika rakibna ila musdalifa xam nga da nga war a wàcc rek jubal musdalifa bàyyi deful loolu te foog mu wax la ko parce que mbiram day jàngale mu ne dafa am lu taxoon waxuñu ko nag moo tax moom jant sona waaye tëbu départ dafa toog na fa daal lu mu waxtu door a départ li amrin iqtada dalika am na mbir mu taxoon mu sàkkoon wa rakibna ila muzdalifa laylatal ahadi guddig dimanche lañ dem muzdalifa wasalna ilayha wa sallayna al ishaayni jaman wa qasran fi masjid al mashar al haram toujours jàkk jooju lay dàkk bu demee ba ajam gu mujj mu ne mu dem fa julli fa moom ñi mu àndal moom ñi mu jiite daal timis ak gaye mooy ñaari gaye yi arab dafay notal ñu boole ñaari julli ba pare wàññi gaye ci jàkk jooju wa rajaana ila xaymatina ba mu jógee ci jàkk ja dem nag ci xayma ba mu dal wobit naa ñu fanaan fa mais fanaan nag bàyyi ca minan man gi ma gis man nelawul dër te sa 72 bu sedd la woon moom laay nettali ne gaa ñaa kii am na ñu ko jege woon ci jaboot gi ñoom suñ daam ñoom ñoom ñoom te nag ku ku armal du muur boppam mais nag ba sedd ba métti te gaa yi nelaw ñëw léeg-léeg nga gis ku muur boppam bàyyi wax la bul muur ndax yaa ngi nelaw te xam ne waroo muur moom dafa taw rek ku muur rek muur yi ma nekk fa rek ca pet di ko xool rek man te te nag mi gis nga Musdalifa am na ay affaire am na loo xam ne moom ka ko fekkee xëy na fàtte na ko wala du ko nettali man sax neexuma waaye dañuy waxtaan am na benn aj boo xam ne ñu ngi nekk foofa ca Musdalifa si di Lamine Niass ma ngi ca aj googa xëy na mooy ajam gu njëkk ñu toog ba mu guddi am benn waay bu ne jëree di yuuxu ci biir benn camionnette yuuxu yoo xam ne bu dafay dafay déchiré xol jaar jaar alors man ma am benn xaatir jàng dara ne ko nii jëmale ko ci kii ba mu ne kerset noppi ba mu yàgg mu génn waaj am ku génne foofu di dem te lam ne ma gis naa la de ma dof dof mel ni dégguma li mu wax ay ci yàlla lañ nekk loolu moo fa gën a yomb mu ne dégg nga ñu ñu ñu wa xata tulu wa bitna wa inda tulu il fajri tawaddana wa sallayna c'est pas évident na ko wax ndax ñi am na ñu yàkkamti tiim am na ñu mënut am ndox foofu sax mun ñu fanaan ba fajar jot ñu jàpp julli wa machina ila mashari xaram dem ca jàkk ja wa waqafna li duaay xata asfara subx ñu taxaw fa na yonent waxoon di ñaan bu bër set wecc am na ñoo xam ne dem nañ bu yàgg ci guddi wa rakibna ila minan waltaqatna alxasayaat wala xusayaat assaba ñu dugg suñu oto ba dem ba minan ñu for ca waadir musdalifa juróom-ñaari jamra rek ndax bés bu njëkk bi juróom-ñaar rek ngay sànni ci jamratul aqaba bu mujj ba bés bés yi ci des nag trois fois sept la muy vingt et un bàyyi sax mës naa def benn kii ci lim yooyu waaye dañ xaar benn jamono wa rakibna ila mina waltaqatna alxasayaati aw alxusayaati sab'a min waadi almusdalifati wa asrana fi batni waadi naar am na fu ñuy wax waadi naar dañoo jàngale ne boo fay romb gaawal waaw day sox ci sunna fépp fu ñu mës a alagee ay nit mu ne boo fay jaar gaawal yooyu yëpp pour jàngale weg yàlla la إلى إلى جن- آه، وادي النار ولما وصلنا منا مشينا حينا حينا بولي جور موي تي ساسا داغا جانغ حين- حينا فانو ملني ñu toog fa ab diir déedéet bii nag moom maanaam machina fawran rek ñu daal di dem ila jamratil aqabati mooy bu mujj ba nekk ci wetu minan yoonu minan ko wa ramaynaaha bil xasayaati sabi ñu sànni suñ juróom-ñaari jamra wa jinaa li xaymatina wa qad suqna hadiyan li tatawuci badanatan xam nga ni dana dem te àndoo ak hadiyu bañ ko daan wax bu njëkk lu naqaree dégg la waaye nag léegi yombal nañ ko sawqul hadiyi ñi amee njaayam gàtt yi ñoom ñoo koy def foofu gàtt yëpp taxaw arafaat ñu utal leen ay mandarga léegi nag yow yaay dem rek jënd gàtt rey mu wóor la ne gàtt bi taxaw na arafaat mujj gi sax léegi loolu itam yombut ñu mujj organiser ba nga xam ne da ngay dem jënd coupon rek nga xam ne rayal nañ la ndax yàpp yi kenn du ko sànneeti muy nëpp muy indi ay problème foofu yàgg naa am mais léegi dañ ko organiser yàpp yi ñu di ko dugal ci ay frigo di ko toppatoo di ko kii di ko yóbbu ci réew julli ñi ko soxla léegi la sax mu egg si Sénégal waaye nag euh, sànni bàyyi jamra itam nañ ci wax tuuti parce que jamra surtout ci suñ jamono vingtième siècle dafay xat ñu bëri ñu yàkkamti dañuy nekk fee di sànni xamuñ sax dugg na am déet mais yàlla mun naa yërëm ñëpp waaye nag day avancé xam nga ñaare dina ànd ak équipe boo xam ne ñu ngi koy itteewoo yàkkamtiwul ba dem ba egg xam nga ca suuf am na mbalka biñ tabaxee pont bu njëkk bi mun ngaa dem moo gën a wóor sax ndax yaa ngi tiim fi nga waroon sànni ci suuf mais nag ni ñu ko defaree nii mu ubbeeku bu saan wi dem rek dana bars ni ko dem fa mu war a dem foofu la bàyyi mujj di sànni ci kaw yéeg bi itam du yéeg bu escalier noo yéegoon nii rek la ba egg day egg ba daanaka xaw a téye ci kémij gi bismillahi allahu akbar ba muy juróom-ñaari yoon am na nag koo xam ne xeer wam sànni bàyyi la dal xam nga bu doon keneen day énervé bàyyi ne pat ba mu demee bay tëgg yonentu ci même occasion bi mu ne ramaw nii la daa ramyil jimaari wa axtau ana diddu iblisin walam aku abra mu ne ba ñuy sànni jamra xam nga dañ naan sànni seytaan mu ne ba ñuy sànni jamra am na ku ma sànni ma ne ko juum nga dañuy sànni seytaan te maay noonam noo ñëwee di sànni dara bàyyi ko di sànni noonam dal di leen ñaanal yàlla ñaan gu baax xam nga euh, noonu seytaan ku ko ko njëkk a wax bàyyi ci liñ xam benn naar la fëf fa moo ñëw Medina gis bàyyi yàgg na fa ñëw muy jàngale sharia ju xuus ñëwaat fekk ko muy waare ju xuus ci maanaa yi te dafa xaw a dëj mu ne ko alayya labbasta xaqan aya talbisi en improvisation a cheikhu tarbiyatin am cheikhu tadrisi tawran tamiiru ila taqidin wa nazarin tawran wa tawran li tasbixin wa taqdisi anta alladi bi kila alwasfayni muttasifun lillahi darruka ya abdu wa iblis moo ko njëkk a bàyyi mu ne ko yow di bàyyi yow daal da nga maa gëlëm loo yow sëriñu tarbiya nga am sëriñu jàngale sharia léegi-léegi ma gis la ngay xuus ci masal yi ba ma ne kii kay oustaz sharia la léegi ma fekk la ngay sellal borom bi di ci xuus ba ma ne yow nitu tarbiya nga ah déedéet waxuma bii wala bii ñaar yëpp yaa leen boole yaa baax yaay noonu iblis bàyyi nag ne ko ana diddu iblisin wala ma ko am roxul sax nga di ma sànni ndeysaan mu ne wa wa wa ji naa li xaymatina wa qad suqna hadiyan li tatawwu ba mu ne génn naa ak gëléem man moom laa loj man wa naxar naa ha tawkiilan bu jar naa leeral gëléem laa tabaskee man keroog waaye nag dama wakiil ku ma ko defal li anna naa laa na laa nutqinu naxara ndax ñun ci suñu réew jànguñ ni ñuy lojee gëléem muy beneen dërs loo mul da nga ko jox ña ko man jé jéem a jéem kii kii mooy indi affaire yi de wa xalaqnaa inda alxajjaamiina alladina inda jamratil aqaba am na ay coiffeur yu fa nekk ñu ngi leen tuddee xajjaamiin mais ci lu koy arab xajjaam mooy kuy nampatal daanaka médecine traditionnelle la waaye nag noonu lañ leen tuddee wotkat yi ñooy xajjaamiin bugguma kenn dama bàyyi bàyyi dem ba foofu dégg nga mu nampatalu déedéet xajjaamiin mooy les coiffeurs ñu nekk jamratul aqaba wa dafanaa lahum maa yurdihim laajum ma ko ñaata ngay watee dañu wat far rek ma jox ko lu ko gërëmloo daf daan aaye alaaj Abdoulaye ci ajak baay ak ñaareel di ajak alaaj Abdoulaye gu njëkk ay beneen daf ko daan aaye waxante bàyyi na waaw mun naa mun nga koo def ci misaal rek tey boo nekkoon looy jaayee lii mu ne la ñaar fukk mu wóor la ne boo waxante mu jaay la ko ci ci fukk ak juróom-ñaar yow nga gëm rek fay ko yéene ne lam la waroon wàññil sarax nga ko moom sax yëgul ne sarax nga ko masala dañ koy dégg ay loxo ak nekku fii yëg ak ñàkk yëg waaw mu ne ko bul bul waxante wa hiya min masail istihsan mi ngi bokk sax ci istihsan bañ koy gëstu ci kutubul fiq yi ci la bokk waaw bañ a bañ a waxante ko war a fay wa dakarna alwaarida fi lxalqi am na ñaan goo xam ne ku wattu ci aj moom la yonent defoon man tam def naa ko waarid boo ko déggee duwaawul waarid mooy bu nekk ci sunna mu ne dama ne allahuma hadihi nasiyati bi yadika yàlla sama càmbar ga yaa ngi nii ci sa loxo jox naa la fajal lii bi kulli chaaratin nuuran yowma alqiyamati maa ngi lay ñaan kawar bu ci nekk rek nga defal ma ko lumière kandiye bu nan cay bis pinc wa barik lii fi maishati te nag yàlla nag ma barkeelal sama dund bi waxfir lii dambi te yàlla nag ma baal suma bàkkaar bi wa taqabbal te yàlla nga nangu min nii jógee ci jógee ci ma amal yi suma jëf mu ne loolu laa sikkar ku ko jàpp boo demee fa bootu yow mën naa moo ko wax ko ci olof mbaa ci arab wala ci lu ne wa kabbar naa inda alxalqi muy beneen dërs bi waa ji waat noppiwu ma de bu muy wat maa ngi maa ngi naan allahu akbar ndax boo noppee ñu xam ne déggoo fiq wa kabalilahat wastaqbalna alqiblata tooguma fu ma neex de de dama toog jublu qibla waa ji wat may tudd yàlla loolu mooy sunna wala ma tamal xalqu defal na shaara ma watee ba pare sama kawar ga ñu jël ko gas suul ko xam nga waxuma sax su na ñàkk suñu waaye xam nga ñi ngi participer ci l'hygiène léegi da ngay ji kawar yu bëri te sawara foofu gaa yi di rato rek bu ñëpp defoon noonu kenn du wa sallayna rakaatayni kon ñëw na toog jublu xibla di wax allahu akbar ñu wat ko ba pare mu jël kawar gi suur suul julli ñaari rakka ñaari rakka yooyu ñi koy def fi mu ne bëriwul la nation boobu laay commencé wa sirna ila makkata baada ma sallayna duhra ñu nekk foofa mi na ah ñu nekk foofa mi na ba njuli tusbaar dal di jëm màkk nag daal dañ faa julli te nag waroon nañoo dem ba ñëw jullee minan tusbaar waaye daf lay wax ne li uzrin waqaa lana dañoo amoon ngant parce que bu ko waxutoon taalibe bu ko doyloo daf naa bàyyi nii fii la jullee tisbaar bàyyi leen li ngeen di wax déedéet bàyyi nañ la baadama sallayna duhra li uzrin waqaa lana walaw la dalika la dahabna ila makkata wa rajana qabla zuhri waaw ni ko dañuy dem ñëw waaw dafi tawaaful tawaaful ifaada ñëw jullee tisbaar minan waaye nag dañu amoon ngànt wa tuuf naa tawaafal ifaada tamaam al xajji ñëw bañ demee nag ñëw wër wër ifaada waaw li faax mooy bëbbal ndax jëpp a ngi ci tubaarkalla léegi ñi ngi ci kaw ñi ngi ci suuf labbayka coow li jëm kaw tamaamal xajji bi libaasi ixraamina boo dafay tawafu li faax rek sa aj moom pare na mu ne nag ñun mënoon nañoo solu bañ sànnee jamra waaye nag dañoo continuer ixraam bi ñu amee woon ba ñëw Makka ba def tawafu li faax bu dul loolu sax si yéen si yéen daf ciy tilim dégg naa nag ku ma doon jëw man ci suñu aj ga lu ko wax waa waa kii moom kii moom li ñuy def mi ngi koy def moom moom mala mala malaana mi tilimut ñu ne sama arwal gi tilimut kon loolu ci sa yoon dégg naa sax ñun ñi ngi armale Gànna aéroport Gànna ci ma aju njëkk gi ak rajo Bilaay mais am na koo xam ne moom dafa doon wax ne waaw su suñ su ustaas mi moom moom moom armalam gi dafa jekk ma ne ko yow de danga maa fonk rek waaye armal ji amul jekk gis nga yàlla ni mu bëri sutura wala ma tama labis naa siyaabana mu ne bañ paree nag tawaaf li faada ñu door a solu nag wa fi dalika aqul boobu nag laay wax ak yàlla naan ko waxallaytani baada taxalli tafaddulan wa xaysu tajalli kaana lil aqli muzhila fa subhaana man aara wa albasa zairan wa atxafa bilmamuli sayban murassala bala nga gis di ko ko wax xam nga baat yomb na mais nag fi ñu koy mu ne ma ngi naan yàlla waxal layta nii mel na ni am na wax ci lu ko jiitu te nga sol te nga takkaay ma mel ni ku naan nga solal ma nga takk ma takkal ma baada taxallii gannaaw bu ma sumeekoo tafaddulan ngir baax goo baax wa xaysu tëjallii te nag xam nga taxallii taxallii ca ñoom tëjallii moo ci war a topp mu ne waxee su tëjalii ba tëjalii gën a tële nag kaana nekku na mushilan di aji nani koyloo di demee lil aqli xel taxalli taxalli tëjalii waa ji dafa ballam nekkoon sàggan nga sóobu loolu mooy taxalli summi na la tilimoon sol na li set di dem ne kuŋ-kuŋ mu tëjalii tëjalii mooy ne tëll zuhur sax xam nga baat bi ci arab zuhur feeñ mais tëjal lii moom foog moom ak tëll falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan comme montagne moom du nit nit a ëpp doole ba Moussa bëggee def mu aayana yàlla na ko xaaral ba ma feeñu toj doj bu bare nga xam nu muy def ne mu ne ba ba ba ba borom Moussa dafay tëjal lii ci tuuru Sina mu mu jël ko mokk rupp yàlla lu mu wax dëgg rek te doj waa ngi nekk mu ne fa subhaana maa ngi subhaana man aara waa waay maa ngi sabbaal ki nga xam ne rafleel na wa albasa tamu solal zairan aji nemmeeku aji visiteur bi maa ngi sabbaal yàlla mi nga xam ne ki ko visité si rafleel na ko solal na ko mooy rek xallaa wa xallaa wa atxafa tam maye nag bil maamuli ca lañ mébétoon mu bëri ba nga xam ne dafa nekk sayban di ab taw murassalan bu buy dotti rek wa adrakna al asra fi makkata wa sallaynaha wa adrakna al asra fi makkata wa sallaynaha fiha comme dañ fa la ñu takkusaan mujj fekk ñu julli fa takkusaan wa ruxna ila minan wa sallayna al maghriba fi mahallina jamaatan wa qasran lil ishaai baadaha jamaa xo fu koy kii bëggul mu la dem bañ demee nag makka ñu julli fa timis ca fañ dal damu njàkk ja mbooloo lañ ñu wàññi gee gi timis kenn du ko kenn du ko wàññi waaye sax terewul sukkandikool xam bi ko nit ñi xam dafa ne ñu wàññi gee gi gannaaw timis junni fa suba itam wala ma zaalat shamsu min yawmi al-isnayn tawadda'na wa dhahabna wa rawayna al-jamrata allati tali masjid al-khayf bi sab'i husayatin wal wusta kadhalik wa waqafna israhuma nisfa sa'atin lid-du'a muy dërs boo xam ne xujjaay yu bëri dañ leen koy fàtte wax ci ëllëg sa nag moom da ngay sànni ñetti jamra yi benn ula wusta aqaba aqaba mooy axira waaye nag da ngay sànni bu njëkk bi wéy sànni bu ñaareel bi nag taxaw si le faut sax nga nga jóg ci yoonu nit ñi taxaw ñaan mu ne ñu taxaw fa waxtu lëmm pour ñaan war a may na jamratul aqaba bare nag da ngay sànni rek dem loo ci sax dafa ànd ak sa organisation wa rajana ila al manzili solati duhri ñu dellu fañ daloon ngir julli fa tusbaar wa fi hada al yawmi zaarana rijalun min ahli al fadli bés boobu am na ay góor yu ñu nuy si yu ñëw nuy si ñu ñu bokk ci nit ñu am ak mbaax kabiruhum ka leen jiite mooy alxaaji muhammad amin tey nag da nga ci yokk alxuseyniyu ndax booba xëy na yegguñ ca woon waaye dafa doon ku bàyyi mujj xam ba boo dégg ñu naan bàyyi moo doon vice président congrès du monde musulman organisation la boo xam ne chaise baa nga nekkoon Beyrouth ndaxte mënuñoo dem Beytul Maqdis fañ ko sosee woon ndax anglais yee ko gannaaw gi Israël mais secrétariat général baa nga nekk ca Pakistan Baye moo doon vice président organisation ba lépp moo tax atam ma demoon Pakistan ndax comité exécutif baa doon daje Baye yónni ma fa foog ñu wax leen yenn yi ragal yab yàlla la dañ ko invité ne ko yónnee wuñ billet ndax suñ kees mënut a génne kii bàyyi ne ah yow yónnee wuñ billet ma ne ko soo ma diggalee ma dem de ñi tooguñ mi ngi taxaw ci néegam ci di wetu lal bi ak bunt bi mi ngi waaj a génn mu ne tekk tuuti rek ne ma labas talal ñaan-ñaan gu gàtt ga nga waaj a waxoon ci gànn ma jox ko loxo dem ba mu ko gisaatee gannaaw bu mu ne Pakistan ba ñëw la te bi may ñëw maa ngi am ñaari billet yu ma utilisé wul ak xaalis bu ñu ma remboursé ci ab diggante te laajuma kenn dara am na tool yu mu bëggoon remboursé ma bañ may ne loolu feyu ma ko dañ ma ko feyaloon bàyyi tax ma di ko wax bu ne la baas go ahead dégg nga de mu ne ñu ñëw xaaj Amin Hussein yi kooku lu bëri laa la mën a wax ci moom góor gu mel ni moom daanaka dund ci xam boobu ndeysaan Israël ñoo ñoo kii rek waaw ba ñu demee Pakistan noonu dem nañ université ba université islamique ñu dend nii ma gis ko ndeke discours bi mu war a def léegi aaya ji mu ci bëgg a dugal daf koo fàtte man maa sës ci moom mais am na arab bu sës ci man fee ak beneen mu tëb ma laaj leen aaya bi niru nangam kenn xamu ko ma ne ko ah ah ma ne aaya bi ma ne ko fàtt fàttali ko ci benn baat rek wala lu mu niru mu kii rek liyaar ma wax ko aaya ba kii ko waxuma dara nag kilifa la yàkkamti na ba dajeeg bàyyi màkk ba mu koy nuyu la ne ko la ne ko Ibrahima sa gone gi moom a gàgganti ci Pakistan xam nga boo fa soo fa defoon njaaxum it bu gisee bàyyi wax ko ko yaa ngi dégg laa ilaha illa allah xaaj Amin Husseini rais majlis islami bil Quds waaye moo doon mufti Filastin itam mooy raisu hayatil arabiyatil ulia wasaani alxaaj Riyad Sulh alxaaj Riyad Sulh bii kat moom itam war na leen wax ci moom ndax fekk si ne bàyyi ca ca Mina luy si ko ànd ak xaaj Amir Husseini wa saalisu alxaaj Mouhamad Goura Darwaza moom itam personnalité la min ku dëkk Baytul Maqdis wa raabiu alxaaj Bachir Saadawi min Dimashq xam nga jotaay booba baay ak ñii li baay bindut fii mooy bàyyi daf ne ma seen waxtaan wa waxtaan nañ ci waxtaanee nañ ca li tubaab yi coloniser réewu jullit ñi fi mu ne kañ lay jeex mu ne wax nañ ca ba ne ñoom ñett ñooñu xaaj amin pour baytul maqdis Palestine Riyad Sulh pour Lubnaan ndax boobu mi ngi ci loxo tubaab yi ak Baye pour Sénégal ku ci njëkk am indépendance na nga bàyyi xel ña ci des dimbale leen ndax nit dafa judd nekk gor te dafa war a continuer nekk gor dërs bi nag pour ñun mooy suñu xutbu bi xutbu du xutbu kenn sa xutbu ñëpp la ba muy aj aj ak lislaam mi ngi xalaat indépendance su Sénégal ak yenn dëkk jullit yi pour ñun loolu mooy progrès du di saaga tubaab yi di def ay sitting ak di lakk kër yeeg yooyu déedéet booba Riyad Sulh bi gannaaw ga ba Beyrouth amee indépendance jógee ci France mooy premier premier ministre bu ñu fal foofa Hadj Amir Hussein moom nekk na ci ni daal ba xëy génn àddina am na bés ci Beyrouth ci ci Baytul Maqdis foofu boo leen ko waxul day day kii doo leen ko xam benn journaliste bu nekk ci Newsweek xaw ma mës na ko wax ci du ci ajam yu mujj atam yu mujj ne ko daal damaa bëggoon bés biñ la gawee ci baytul maqdis nga xam ne picc ma xam ne weñ wu naaw sax du raw en temps anglais yi ñu toog toog rek dégg la ngay xutba ci Beyrouth comme loolu wéy na fi mu ne dama bëggoon nga jox ñu prix nga nga jox ñu moom naka boo boo njëkkee joxe xabaar primauté nga jox ñu primauté xabaar boobu rek ñu fay la nangam journaliste ba ne mu ree rek ne ma duma la ko wax ndax ba tey suñ ma gawoon su ma ko defee génn te kuy xeex du wax fi muy jaar mu ma bi ma gisee xisbulaa yi biñ gañee gaa yi ñoo nag indi indi jësira nag fii lañ ndëbb woon fii lañ gasoon ma ne yéen a ñàkk fayda xeex bu jeexoo gu nga wax ni nga defoon ba gañ bon léegi Hadj Amine Hussein man xam naa nam defoon bu génn waaw xam naa ko benn jarbaatam moom laa miinanteel mu ne ma gis nga bañ ko gawee ci soldaar yi nga xam ne ñi ngi ànd ak policiers yi wala policiers yi daf ci am koo xam ne Hadj Amine nijaayam la te dañoo niroo moo ko jox tëneem d'une manière mu sol ko di kii ba génn mu jaar ca tefes ka jaar wetu Sayda nekk ca Beyrouth gaa yi jommi Hadj Amine Husseini waaw tabarakallah war wa jaalna dalika yowmu solosaay xaw ma lu mu ci jublu wa huwa al yowmu thani fa taajjala al mutaajiluun bés ñaareel bi xam nga yàlla dafa ne fa man taajjala fi yowmayni fala isma alay waskurullah fi ayamin maadudat fa man taajjala fi yowmayni fala isma alay soo amee boo nekkee minan bésu ñaareel ba nga yàkkamti ngir sa organisation tukki amul bàkkaar waaw wa man taaxara fala isma alay bàyyi waxoon na ne wax ci jar naa seet ndax ki def li gën dafa ne rek amul bàkkaar ki def li mooy gën mu ne amul bàkkaar bàyyi mos na ko firi ay nit waaye fekk yow ma ko dégg nga léegi nag wa fii da wa baqina nahnu bila taajul bàyyi mu ne ñun yàkkamtuwuñ bu jigi ñun amoon nañ chance parce que fi ñuy dal mëb na rabita ci minan moom ñun foofu la nekk moo tax bu nit ñi yibee itam ñun dañ fay des ba bésab ñette bésab ñetteel ba ci ngay xamee nit a yàkkamti bésam ñaareel bi daal balaa tibis boo demoon di sànni jàmbara doo gis nit daanaka sax jàpp dem nañ màkk xatati ñun ñu toog ba ëllëg soo ñuy daagu ndànk di sànni di déjale ay photo bon mu ne wa dalika bon bon bon bon wa dalika xa mu ne wa fi dalika al yawmi faqadtu naali inda al jamrati al uxra ba ma demee ba jamatul aqaba su ma daal réer fa mu ne wa dalika qaala li fiihi baadu lixwaani innahu alaamatu lijabati mu ne am nag lenn ci mbokk yi ñu ko ne réer ak dàll yu foofa mooy mandarga lijaaba waaye fu mu jëm rek am na mandarga lijaaba moo tax ñi ngi sant yàlla wa fi laylati qabla dalika qaala li waliyun min al awliya mu ne guddi gi jiitu loolu mu ne am na kenn ci waliyu yàlla yi bu ko ne anta rajulun ña ko jàkk rek anta rajulun warista maqaama rajulin saakinin fi xariyati faas kooku xamul sax Maroc wa dalilu dalika kawnuka tashrabu l ataay baada rujuucika wa lam takun tafalu dalika qablu bàyyi rayut ay nag feete ko dafa ne wa arju min allah an yuxaqiqa dalika rajaa dal wéy wala waaj ne ko jàkk aw waliyu ci waliyu ne ko yow day góor ak yàlla nga koo xam ne doon nga maqaama góor ak yàlla gu dëkkoon paas xam nga xariyatu dinañ ko jublu ci village ci waxi arab dañ ko jublu ci dëkk bu mag ndax wasalil xariyata misra lañ doon wax waaw yaa ngi dégg mu ne ko lii sama tegtal nag ci wér ak lii machet bi mooy yow boo ñibbee sa aj gi da ngay naan attaaya te dootoo ko baax te njëkk loolu daawoo naan attaaya kooku nag bàyyi rek moo ko mun a firi ne bàyyi na bàyyi na anaam musuma naan attaaya gis nga bicharaat yi ni mu tegaloo ak daf koy def de manière bu simple rek wéy xam nga bu doon leneen lu naan law araftumuni non non non non daf ne wa arju min allahi maa ngi ñaakaar ci yàlla mu dëggal loolu dal di wéy wa fi yawmil arbiaa wa saalisul ayaam bon bon am nañ am nañu waxtu kon nañ koy wa fi yawmil arbiaa wa thalisu ayaam rabayna al jimaar al thalaatha bu li bëgg dal mooy nga nga fartaa googu jimaar jimaar al thalaatha waaw parce que yëpp ka aadatina fi yawmayni qablahu ñu sànniwaat jamra yi benn ñaar ñett comme nañ ko defee woon barki démb ak démb wazurna magaaratan jalasa fihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne itam nemmeeku naa visite naa benn xunt boo xam ne benn gorot boo xam ne yonent ay sasam toogoon na ci moom itam wa unzilat alayhi suratul mursalaat ñu wàcce ci moom suratul mursalaat wa masjidan nazarat fii suratul kawsar dem naa visité jàkka joo xam ne foofu la suratu inna atnaka kawsara wàccoon wa mahalla nuzulil kabshi alladi fudiya bihi ismail dem naa itam ba ca barab ba nga xam ne xar xaaf ba jóge woon aljanna ñu jote konteel ismaila dem naa ba foofa ma ma ma ma ma visité ko wa maga wa magaaratan kaanat tajlisu fii haajara dem naa ci gorot gorot boo xam ne itam sayyidatuna haajara fa la daan toog ndeysaan wa ruux wa wa wa raxalnaa min minan wa nazalnaa bi masjid al muhassab yu jógee minan mais nag tëbuñ rek dem am na jàkkay muhassab taxaw nañ fa maa ngi dégg ñiy maddaxa borom kii wax naan xalil la yauja bil muhassabi muhassab boobu lay wax wa salayna bihi zuhra wal asra wal maghrib wal isha julli fa ñeenti waxtu qasran illa al maghrib daf koy détaillé ñu wàññi yëpp lu may jàkk dama ragal buñ ko defutoo noonu da nga ko ne mais bàyyi wàññi na bàyyi wàññi na kii ah xam nga ku ku déedéet du wàññi mukk lu may juddige wa daxalnaa makkata wa min minanillahi alayna an sarakna tariqa allati tamurru bi mawlidi nabii yàlla xéewe ñu nag fi ñu jaarale pour duggaat màkka jógee minan mi ngi romb ci barab bi fi yonent yi alayhi salaam salaam gane woon àddina waaw mu mujj ga sax ñun booy dem rabita di liggéey booy wàññeeku yëpp foofu ngay jaar wa qaratu cheyan min mahfudati min alcheri fi dicri mawlidi saa bañ fay dem rek ma commencé jàng li sama li ma mokkal ay burdaak hamziyaak laamiyaak yoo xam yépp wa qaratu cheyan min mahfudati min alcheri fi dicri mawlidihi lañ doon fàttali koo juddóom nga salaa wa fi hadihi al ayaami kullan bés yooyu yëpp ma wax nag ak rythme boobu yëpp kullan xaadimi ki ma doon liggéeyal di suma bëkk néeg sultaanu kanu abdullah ibn abbas bayoro mooy buuru kanu abdullah ibn abbas bayoro haada maa ngi lay wax lii kat ne moo may liggéeyal ngay waqat alim te xamoon nga murafaqati ànd gi ma ànd ma al xaadimayni assaadiqayni ànd ak sama ñeneen ñaari bëkk néeg sama ñeneen ñaari taalube yu dëggu kenn ki mooy al allaamatu borom xam-xam bu réy bi alhaaj ma abdu maanaam ñang wa sinuhu ak kim bokkal fil iraada ci bëgg yàlla ñoo bokk bàyyi ci bëgg yàlla alxaaj lamin maanaam amin soxna ibnu abi bakar ñoom ñaar jazahum allahu xeyran yal na yàlla fay leen wa jaza te mu fay itam sultaana kanu déglu nag ishaara xafiya bàyyi na subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin xam nga yàlla dafay sant nit boo waree daaba ak nag gannaaw gi loo war booy sabal yàlla yàlla mi ñu tàggatal lii xam nga nit buy ombat giléem di ko jogloo ombat fas di conduire avion yàlla ko mun tàggat xool nag bàyyi ishaara bi buur bu toll ni moom nekk xaadima mu ne subhaanalladi saxara lana wa kunna lahu muqrinin bu fekkoon ne ngóor rek la kii mënuñ koo tàggat wa xarajna ashiyata yawmil xamis alxamisa achara min achahri ila tanim lil ihram léegi mi ngi jëm ci lihram pour umra ñu yemagum bon foofu nasal allah taala an yutimmaha lana bima fihi alxayru wassaadatu wa an yubarika fina fi lxakaati sakanat ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على قدنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله
برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نام برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض